ni di nuyuwaat di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fi ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax a baax di leen euh, gërëm euh, ci 30 minutes chrono tey jii ñu dellusiwaat euh, di gërëm baax Abdoulaye Diallo Abdou Top ak Fallou El Hadj Modou Diouf ñu dellusiwaat rek di wax ci actualité bi actualité bi doon une actualité boo xam ne Sénégal moom actualité du fuy ñàkk on parle de tout et de rien au Sénégal. lépp dañ koy jox importance ci ay wax ci mbir yoo xam ne war woon tax doon débat dafa waroon doon mbir yoo xam ne dañuy ñëw dóor ko mu daanu wax ci l'essentiel ku ne jàll parce que yàgg na fee jaar te amul lu mu yàq sunu dund wala mu yokk ko ci <coughs> bokk na ci nag li ñuy wax lii di déclaration de politique générale ñu naan ko DPG di mbir moo xam ne képp ku nu fal nga doon na premier ministre bu Sénégal da ngay ñëw janoo ak ndawi askan wi ndawi askan bi nga koy wax moom mooy les députés du peuple boo ñëwee nga wax sa programme ak sa vision ak fan nga jëmee réew mi pour ëllëg ñu gis ni ku ne jaar na fi ñu ne dans les délais trois mois nga koy def quatre vingt jours waaye am lu dox ci diggante bi kii di président Macky Sall ginnaaw bu mu dindee poste premier ministre. li jëm ci délai boobu dañoon mu nekkatul une obligation pour le premier ministre muy respecter les délais pour muy ñëw di def déclaration de politique générale mais n'empêche Amadou Ba bi mu nekkee première ministre disposition boobu dindi nañ ko mais teewul respecté na la tradition ñu gis ni kii di Abdoul mbay waxoon na ni respecté wul les délais parce que defoon na plus de trois mois doog ñëw jàkkaarloo ak ñii di première. ab ndawi askan wi di les députés ñu gis fi yeneen ak yeneen yoo xam ne jaar na fi ci déclaration de politique générale mu doon nag tradition boo xam ne ñu bari dañ koy xaar mais bii dafa wute ak yi fi daan am parce que ñun daal frame premier ministre da daan nekk occasion pour ñoom ñu janoo ak les représentant du peuple mais day fekk seen majorité maanaam da lay fal fekk assemblée nationale ñi nekk ci pouvoir bi ñoo fay ëpp ay nit kon yow tey ña ngay dem di dajel ay nit lañ yoo xam ne dañuy ñëw ngir jàpp ci sa combat dañuy ñëw pour protéger la mais dañuy ñëw pour accompagner la Abdoul mbay bi muy def DPG boobu waa Benno yi ñu nekkoon majorité assemblée sa sekk bi mu koy def ci jamonoy Abdoulaye Wade boobu libéraux yi ñoo nekkoon majorité assemblée mais tey bii Ousmane Sonko ak Diomaye danoo falu Ousmane Sonko nekk PM mu tombeek ñi di mouvance présidentielle bi maanaam ñi fare Yewwi Askan Wi ak ñi fare ci coalition Diomaye nekk minorité ca assemblée national loolu nag c'est inédit nga war a dem assemblée national janoo ak ñoo xam ne maanaam seen diggante Ousmane Sonko du mbiri politique du mbiri adversité mais animosité la maanaam nooneel ak mbañeel man loolu laay wax man Ousmane Sonko ak ñeneen ñi du ma ci dégg xam-xam du ma ci dégg politique mbañeel rek laa ciy gis mbañeel goo xam ne depuis mu commencé di politique la parce que ci fukki at li mu fi daj ci politique ñi ko jiitu ci politique sax dajuñu ko bu weesoo Mamadou Dia mais Ousmane Sonko mooy kindul may dara mooy kindul baal dara même bu waxee jàmm sax ay la ay boo xoolee ñi koy opposé nooneel parce que fi mu jaar ak parti politique am fi mu jaar ak Pastef fi mu jaar ak Macky Sall da sentir ni lii dafa jéggi woon politique damay waxtaan ak benn nit démb mu ne bakkanam sax mënoon ña cee des mais suñu borom suturaal na ko ba mu jël nguur te loolu nag ndimbalu sunu borom la. parce que ku mën amul mais ku suñu borom dimbali moo fi ne mais aussi ndimbalu askan wi taxaw waaye tam fitam ak njàmbaaram pour mën a jàkkaarloog situation yi parce que en tant que leader Ousmane bu doon kiy yokki wala kiy ragal wala kii am lu muy tiit mën na am tey jii du nekk au pouvoir kon tey jii épreuve yi tegu ci moom bari na ba ni mu nekkee premier ministre Diomaye nekk président de la république ba tey jii ñu jàppoon ni Ousmane Sonko ci la war a gën a noppalu tey jii la gën a sonn ndaxte bu waxee ñu waxal ko bu waxul ñu waxal ko parce que gis nañ ñoom ma jàmbal ak gàngoor googu nekk ci presse bi dem sax ba doon créer ay xibaar diggante moom ak général Kandé ak général kande ci loo xam ne. du wérul du dëgg du tus dem ba na sax ay nit dem ba ca conseil constitutionnel ay magum jëmm jàng xam yoon xam lépp mu jaral leen ñu dem conseil constitutionnel nee na lépp le pouvoir est vacant maanaam réew mi amatul njiit moo tax ñu ne dañuy dem conseil constitutionnel kalaame parce que Ousmane Sonko mooy doxal lépp bu doxee ci tapis rouge sax ñu ne tapis rouge bi waru ci doxee nii bu dugalee loxoom ci poosam sax ñu ne ko waru ko defee nii. daje fi ak Jean-Luc Mélenchon mu jural ko li mu ko jural yëpp lu mu ko jural yëpp ci wax joo xam ne leer na ñëpp xam na li mu doon wax mais ñu na wax ji ne moom day day kañ lii di góor jigéen yooyu yëpp waxal nañ ko ko mu dem taxaw ca Grand Théâtre def show politique politique am ñëpp génn gis nañ ay ñoom Madiambal ay ñoom Bougane ñoom Mamadou du Kane ak ñoom Yoro Dia ñooñ léegi ñenn ñi nekk man dama naan leen li leen dal mooy la nostalgie du pouvoir perdu parce que dañoo jàpp ni noos gi doon noose alalu réew mi donkaasi gi nekkoon di séddoo alalu réew mi tappale gi nekkoon di fooye alalu réew mi ak fen yi nekk woon Ousmane Sonko moo tax mu dakk parce que ñoom ñëpp dañoo géntoon ni Macky sàll mën na fee ne ba jugee teg fii nitam mu kon ne di fi ne ñoom ñu kon ne di dund nan doon dundee duñ fay impôt bëgguñu réew mi yëguñu réew mi fonkuñu réew mi maanaam dara yi teelu leen ci réew mi ñu xëy nag loolu lépp dakk buñ respecté woon la peuple sénégalais dun ko jiñ Diomaye dun ko jiñ Ousmane Sonko dañ koy jiñ peuple bi parce que la volonté du peuple Ousmane Sonko mënul fal boppam lu mu am am doole jomaay lu mu am am doole njaga jomaay ba mu dem na fi local législative gañewu ko non local local njëga ñaaw gañewu ko kon mënul fal boppam ndax gox ba mu jiit dëkk sa juddoo fa ba mu fa demee di uti joxuñu ko mais ñoom jàpp ñu ni askan wi ñoo def changement taxaw à 54 pour cent ne lii ñu fi jógee ñoom gëmuñu lool ba léegi danoo gëm ni benn nit mooy ki ko xañ mooy son ko loolu tax boo xoolee dans leur analise ñaar la ñuy mere Macky Sall la mere parce doo jàpp ni Macky Sall dafa jël nguur gi rek jébbal ko Ousmane son ak Diomaye dem da nga dégg tappalekat yi analyser di di def loolu ci bopp nit ñi alors que Macky Sall bu doon ni moom moo yor nguur day kon ne tey du fi toog Macky Sall nguur la bëgg Macky Sall ñi ko jege te xam ko te mus ko fréquenté koo ci waxtaan xam ne Macky Sall nguur la gëm gëmul leneen. Macky Sall day nguuru ba tey jii dafa jàpp ni mooy président la Macky Sall même na muy dundee Maroc bëgg nguur moo tax Macky Sall bàyyi Sénégal dem Macron di ko yónni mu koy doxal yónnent ak teraanga gi di ko Sénégal defal yëpp li wala fii di léebu naan ku war ñay wàcc ko loo yéegaat day tuuti mais Macky loolu dalu ko Macky Sall dafa yéeg ñay wàcc ko dem di war lu tuuti maanaam ab président de la république dem ba egg ci dayo dem mën a liggéeyal beneen réew nga xam ne nguur rek la gëm. nguur googu nag bu xëyee bàyyi ko bàyyi ko ci coobareem loolu da des fois ñu naan non Ousmane Sonko wala Macky Sall wala Diomaye respecté wul le peuple sénégalais di nga Ousmane Sonko ak Diomaye yii nii bu neexoon peuple bi tey tey tey tey deux mille vingt neuf du nekk duñ fi nekkaat loolu da Ousmane Sonko intelligence politique am mooy heure bu waree wax peuple bi lay waxal parce que xam na ñan ñooy fal ak ñan ñooy folli léegi ngay dégg ci mbiri déclaration de politique générale bi. dinaa ci dikk benn ma jamal jaañ naan la ay uj aj yu jóge màkka ñépp ku xam màkka wala nga am mbokk mu jë dem màkka màkka fu ko jug indaale grippe loolu tax bari nañ ñu jóge màkka da leen di vacciner wala ñu tester leen pour voir mu tombeek jamono boo xam ne grippe bi dafa bari ci àddina bi ñun ñii boo xoolee ñu suñ baat yi deewee da leer ni grippe bi ci la waaye ñu ngi koy doxaale parce que tàmm nañ ko ak suñu yaram ñu ne bépp aj bu ñëw obligé wul la pour ñu yekk la wala ñu seet seeram waaye bu dee ne da nga wane ay signe ñu jàppale la ba boo dem bañ ko wàll ñu nga dëkkal ministère de la sant jël ci ay disposition loolu da waruñu koon rafetlu Madiambal Diagne taxaw fële na son ko moo bëgg corona bi ñëwaat pour mu bañ a dem DPG DPG quoi ñii dañuy waajal dof amatuñ argument dund gi lan daan taafantoo wàññi nan ko ministre yi ñu ngi doxal maanaam fépp fu ñu laal rek mi ngi dox maanaam amuñu lu dingatee nguur gi maanaam dund gi wàññi nan ko nguur gi def na li mu waroon a def transport bi def na mu waroon a tabaski bi sama benn kilifa bàyyil mu foofu ma jàmbale Ablaye <laughs> sama benn kilifa bi gars yi faloo daf na ma man fan laay nattee nu nguur gi jàmbaar lan wala duñ jàmbaar man ko fan mun ma tabaski mun a bis bu tabaski ñëwee ci ngay xam ne ils sont compétents wala compétents ñu mais benn moment man dama naan yàlla moo ànd ak ñoom tuuti parce que boo xoolee ni Korité bi yombee ci sénégalais yi ak ni tabaski bi yombee ci sénégalais yi malgré que conjoncture bi ak ñàkk gi xaalis amul mais yàlla woyofal na ko loolu nag sensu nguur la sensu nguur la ak yéene gi ñu am ñoom ci nii dañuy jubal jub jubanti maanaam fig mi ngi doon dëgg ci ñoom seen nguur gi suñu borom da ciy jàpp. seen nguur gi suñu borom da ciy jàpp par ku mën amul mais ku suñu borom dimbali moo fi ne fekk ñoom ñi ngi jàpp nii danoo war a taxawu askan dimbali suñu borom da leen di taxaw benn ma jambal jóge fee naan corona bi lan fi bëgg a pour ma Sonko bañ a dem DPG maanaam ma jambal capacité intellectuelle am ak capacité d'analyse am ak xam-xamam man weesu woon na loolu maanaam bu demee bay bind bind bind rek en tant que journaliste pour man analyse am war na sut loolu pour dire la vérité analyse bu ma jëmbal war na ëpp loolu nga dégg benn Moustapha Diakhaté ñu damay ñëw ba léegi de ñu li ma naan la nostalgie du paradis perdu ñoo xam ne fi ne ni dañuy waaj a dof kat kay ni maanaam parce que nguur gi ñu perte ci Macky Sall lan gëmul ba tey perte nañ ko am na ñu gëm ni sax 2029 ñii dañ fiy jóge quoi ñii accident de l'histoire la Sonko ak Diomaye ñoom ñii loolu lañ gëm gëm ni mën nañu mën a manœuvrer tappale ba nguur gi du doxal mais nguur gi nit ñuy doxalee noonu la kii rëbb jaan doo faale jiit loolu lay wax ku mën a dóor Macky Sall ba mu daw génn réew mi gàddaay ma jambal du la jaaxal benn Moustapha Diakhaté ne non Sonko li mu leble xam na ni bu ñëwee assemblée ñu fay fal ko fay ko ko moom ay waxi defante lay wax Moustapha Diakhaté na ñëw DPG bi da ko war a def maanaam affaire xol quoi du xam-xam xam loolu du xam-xam mooy li mu leble bu ñëwee assemblée dinañ ko ko fay. est-ce que ay fayantoo lan war a nekk assemblée même bu Sonko ñëwee DPG taxaw ci kanamu député yi xanaa dafa war a def DPGM buñ paree ñu def débat débat parlementaire bi mu wax fi mu jëmee réew mi ak projet bi fan lañ ci toll ak lan lañ fi fekk ak ban yéene ak ëmm lan am ci réew mi mais xanaa loolu mooy déclaration de politique général mais du du lu du lu du lu graaw loo xam ne lu exceptionnel. wala loo xam ne tey ji danaan ni diw bu ko defee dee mais benn Moustapha Diakhaté fi mu lay dugal moom mooy li mu leble bu ñëwee assemblée dinañ ko ko dinañ ko wan ni li mu leble dinañ ko ko fay loolu la xam moo tax ragal la day daw <coughs> waxi dof waxi dof parce que du defante du defante même bu ñëwoon opposition bi dañuy wax mu wax rek te ku xam ko xam ne ba muy doon benn assemblée benn nit ci assemblée la leen jaaxaloon du tey ji ngeen koy jaaxal tey ji lépp nekk ci loxoom du tey ji la ko yambar yi di jaaxal barke Mouhamed loolu il faut que des fois ñoom sax des fois bi wax ñu waxee xel tuuti Sonko benn député la assemblée daan na dugg assemblée député yëpp génn daw génn daw bàyyi ko assemblée bi ndax ragal ko kooku tey nekk premier ministre yor nguur yor la politique du gouvernement kooku député yi xam ne ñenn ñi seen xel nekku fii ñenn ñi amuñu xam-xam ñenn ñi taxawuñ fu dëgër ñoo ñooy jaaxal Ousmane Sonko kii DPG ci koo xam ne 54 pour cent ñi ngi ci ginnaawam taxaw mu ñàpp dugg biir assemblée nationale ñëw jàkkaarloo gars yi di wax nga dégg benn yaro ja damay wax gars yi gars yi tàmbali di dof parce que benn jamono da nga naan nii liñ jàngoon wala bokk xamuñu woon dara mais ñun léegi la ñuy doog a xam ni Yoro Dia musul am xam-xam ñun xamuñu woon dara dañu daan napp parce que benn télé ñaar ñoo fi nekkoon costume lay sol ñoo làkk tubaab puudaru ba yaan yi ñoo toog ci télé di napp nit ñi mais bi ñu demee ba mbir mi yaatu ñu commencé comprendre ni naka la Madiambal musul xam dara parce que ku xam dara moom ni mu analyser dps bi ci mbiri corona ku xam dara du analyser noonu Yoro ja yàgg nañ di ko kañ. mais bu dee wax da nga naan kii est-ce que am na xam-xam loolu ngay jàngat parce que Juan Branco ñëw João Melanchon ñëw mun a waa Pastef ay complexe lan moom noonu la ko analyser quoi complexe lan danoo complexé nit ku weex moom foofu la dugal nit ñi maanaam ay sax amul argument amul dara man nag foofu laa gëmee ni nguur gi ñi ngi liggéey parce que bu doon ni ci côté programme su pokkee ni ñuy doxalee lan la ñuy dingatee nga ni. nguur gi kat cuune leen wala bokk liñ teg baaxul mais ñoom du leen attaqué foofu da leen di attaqué attaqué yu tuuti di dugg ci détail yoo xam ne maanaam képp kuy xalaat doo ci dugg parce que adduna weesu na nag fi naan kii tubaab la kii nit ku ñuul la adduna bi moom weesu na foofu ñu ngi ci yeneen ñu ngi feneen su un intellectuel comme Yoro Dia warul analyser noonu xeebuma ko doyen la mais bu dee ni xam-xam lay wax Yoro Dia analyser war na sut loolu war na sut loolu léegi nag est nguur gi ñàkk moo indi tey jii ñu mel nii loolu nag di delloowaat ci DPG bi Ousmane Sonko ak fi mu jaar yëpp ku naan dafa ragal jàkkaarloo les députés pour di wax pour DPG bi man Omar sama position xam mooy la bu mu ne Ousmane Sonko damay dem DPG ci biir trois mois yi ay danoo jële woon fii premier ministre rek ay non disposition bi indi ko règlement intérieur bi soppiwuñ ko bu ma doon soox feebar am ngànt damay soox ñëw jàkkaarlook ñoom ndax gënoon naa metti nga doon kenn lem leen kon du tey ji la lay jaaxal assemblée bi nan mel li leen neex parce que nag Sonko bu doon ay xas ay xaxar ay saaga mooy tax du egg fi mu egg wala du jëm fa du egg fa mu war a jëm du tey jii du nekk premier ministre daj na lu ne c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs Ousmane Sonko bu mu xaar lu sedd man loolu laa gëm na dem DPG bu dee am na wér gu ko may mu mën a dox na dem DPG tey jii li fi def. mais loolu loolu mën na dem DPG li li ngeen liggéey ci tabaski bi gi fii xar manqué wul dund manqué wul dara manqué wul li El Malick def ci transport bi li ma Mabouba di def ci mbay meeg élevage bi li keneen di def ak li keneen di def li ci wàññi dund gi en deux mois boru baykat yi ngeen fay ko bor yi ci hôpital yi ngeen tàmbali di ko fay commencé taxawal agropole yi campagne jëm ci njaay campagne wu jëm ci wàllu mbay mi ngeen soobu ci seen gur gi suñ borom barkeel pétrole bi jëllaañoo ci réew mi bari li commencé di génn ñi njot Sénégal gu neex ëllëg waaye waay Sonko am nga loo mën a teg ci kanamu député yi Sonko boo taxawee ci kanamu député yi di wax waxoo ak waa Bennoo waxoo ak waa Taxaw waxoo ak waa Yeewi Sonko sénégalais yi la fal 54 pour cent. ñoo lay déglu ñooñ nga amal affaire kon DPG bi defoo ko pour ay parka ñi ñooy majorité ñu ne minorité mais bis boo xaaree man sama xalaat laa la wax de ba coalition Diomaye wala Yewwi wala Pastef ëpp doole assemblée boo ñëwee di ko def du safee parce que boobu ku la tàccu ngay wër ku la tàccu wala loo wax ñu ne gongo te nag assemblée la leen fa doon bañ mooy ay tàccukat ba ñuy créer cohabitation à l'Assemblée xam lu ñu bëggoon diirante mbagg am ñaari parti taxaw ñii di xas ñii di xaxar ñii di tàcc mu am benn équilibre ci assemblée te liñ yaakaar du am de ji nga bu demoon assemblée bari na ay député yu njort ni ñoom dañuy sànni xeer Ousmane Sonko du nga ko sànni même ñi bokk bennoo am na ñoo xam ne buntu buñ jaar pour dugg ci coalition Diomaye parce que xam na ni ñi ay ndaw lan te ñi ngi liggéey te mën nañ yàgg ci nguur gi te opposition bi leen di jëlal taxaw gu fi. bari na ci député yoo xam ne Macky sàll mi leen tay fii jarul lu leen di xas Ousmane Sonko Amadou Ba mii dóorul xeexul fayul atewul xeex xuloowul jarul lu leen di xas Ousmane Sonko kon tey jii DPG bi man ànduma man laa la wax loolu man la concerné parce que ku mel ne Ousmane Sonko ak li ñu fi def ci deux mois dem trois mois mais loolu jar na dem taxaw ci assemblée nationale wax ak sénégalais je par parle pas des députés parce que am na député yoo xam ne booy wax duñ xam sax looy wax techniquement parce que du seen xam-xam du seen dara gësuwunu ci leen nalaw lan fa nekk ak yeneen ak yeneen yaa ngi gis comme député boobu taxaw naan maay xama nan dolli dooyo booy ku doyul nooy dollee moom moom indi naan loi criminalisation homosexualité yu ne nga dugg ci maanaam débat yu ñàkk fayda yoo xam ne criminalisation homosexuelle dinaa dugal projet de loi bi utum buzz kase yow fii nga toog ci Seneweb ñëpp di la déglu nga ne bi nuy dem di tiiñal Macky Sall dañ ko doon tiiñal rek mais Macky nekkul woon ci loolu maanaam dangeen ngeen doon caaxaan ci Macky Sall le kon góor jigéen da ngeen ko caaxaanee ci Macky Sall ba daaneel Macky Sall tey nee na léegi da léegi ne maanaam loo xam ne moom gëmu ko maanaam boo jëlee ay wax maanaam kooku dafa war a bàyyi di wax xaw ma dolli xaw ma war a bàyyi di wax bu boo waxee tey nga jëli waxi démbam nga tegaat wax ji da nga naan fan lay waxee kan la parce que mooy wax mooy weddi boppam. si xeetu député yi mel noonu ci assemblée nationale ñooñu dañoo mën a jaaxal Ousmane Sonko yow nga nekkoon benn député jaaxal assemblée nationale tey jii nga boot réew mi ñëw taxaw biir assemblée nationale tey jii lu tax débat wu DPG bi fekk demul mais débat la boo xam ne gaa yi dañuy ne di ko alimenter dañuy continuer di ko alimenter alors que tey jii nguur gi def na fi résultat yoo xam ne moo doon doon débat mais waxi DPG bi lan la yàq. dund gi ñu fi wàññi ñëpp rafetlu ko gaa yi amuñu argument pour contrôler leen mburu maa ngi nii di jar fanweer ceeb bi wàññeeku leneen ak yeneen tey ji moo waroon ne di doon débat mais dugal nañ DPG loolu daf fi leen opposition bi di dugal des fois war waruñu ko nangu te man dama gëm Ousmane Sonko depuis quelque temps dafa noppi yal na nekk ci jàmm depuis quelque temps dafa noppi mais dama gëm ni mi ngi liggéey ci DPG man gëm naa ni feeg délai trois mois di jeex Ousmane Sonko dina ñëw jano yi Ousmane Sonko kenn du ko jam naa ni bu dee fit bu dee njàmbaar bu dee courage Ousmane Sonko ragul ko saaga ragul ko xas parce que fi mu egg saaga ak xas moo fa yóbbu bu doon saaga ak xas moo tee Ousmane Sonko tey jii egg fi mu egg usman Sonko heure bi waxatul ko mënoo jéggi li nga jéggi yépp ñëw ba fii ñu naan ay DPG bu leen may lu ñu wax nañ ñëw na ñëw taxaw ci deux mois yi li ñu fi def mu ñëw teg ko projet bi ñu naan du dara xam ne ba léegi peese demee projet bii ñu naan dara mais projet boobu mais ñu wax waxante dëkk jot na mu ñëw expliquer ko wax lan moo retardé projet bi ak kañ lañuy jot ci projet bi commencé ko dérouler mooy programme mu Pastef kon c'est une belle occasion parce que ku mën a jàkkaarloog dix mille jeunes grand théâtre wax ak ñoom. kook jàkkaarloog ñenn ci ay député jàkkaarloog ñoom wax ak ñoom jaadu la léegi nag bu ma kenn dugal ci règlement intérieur ay tappalay Macky Sall jël woon na fi premier ministre bu doon lépp lu fi Macky bàyyi dañuy continuer di ko doxal dañuy échec parce que Macky Sall bàyyiwul lu baax ci réew mi ay lii Macky Sall moo fi bàyyi woon loolu du lay moom dafa jaxase lépp yàq lépp tas république beeg administration beeg lépp dem yoonam te bun paree ci loolu Sonko ak Jomaay li ñu war a def mooy continuer démaxi démaxisation xawma ma démaquillage parce que nag mbir yéex na man loolu laa gëm yéex na ba léegi système bi ay nitu Macky la ñu ngi ci ñii ay commissaire police lañ ba léegi te bokk nañ ci ñu ñun doon tudd ci. événement yi fi amoon ba léegi ñi ngi fi yor seen poste ñi ay procureur la ñi ay juge la bu dee loi bi dafa dafa maye ñu war leen fa jël nan la fa jëlee mais mbir dafa yéex parce que nag mbir du defaroo ci loxo ya mu yàqoo maanaam lu mbir set set set set boo ko tegee ci loxo yi tilim mu taqal ko administration bi ba léegi nitu mag yi dañ ci ne dañ ci ne parce que affaire générale Kandé bi ñu fi créer woon ak yooyu man dama ci am beneen xalaat mooy pétrole pour réew réew bu waree exploiter pétrole il faut que mu am stabilité il faut mu am réew mu dal réew mu nekk ci jàmm te boo xoolee Sonko ak Diomaye nit faloo ci 54 pour cent démocratiquement ñu jox leen ci réew mi ñuy dérouler mais ñu yor seen alal di ko dugal ci pétrole bi loolu lañ soxla moo tax danoo falu deux mois pétrole bi ball estabilité boobu am ci réew mi moo tax jamono bi ñuy génnee mbir général Kandé ak pétrole bi ji nga ni mu luwee parce que dañuy bëgg a gëmloo les bailleurs ak les partenaires ak les multinationales xam lu leen bëgg gëmloo mooy réew mi amul estabilité moo tax des fois yenn information yi ci général Kandé jaru sax di siwal parce que dañ ko bëgg a utiliser juste pour man. pour wax ni ba léegi Sénégal amul stabilité nguur gi fi ne jox na leen ko waaye ba léegi dalaguñu mos naa dégg Alioune Ndoye mu wax wax bu garaaw mun ne nan leen may ñaari at ñii buñ fi defee ñaari at duñ continuer Alioune Ndoye la lay sous-entendre communication la bi ñuy def pour pour que ñi dàq lay bailleurs de fonds pour que ñi dàq les multinationales parce que Sénégal tànk yi mu jël bu ñu cat duggul Sénégal mun na neexi ëllëg mais pour mu neex. il faut que mu am dal il faut que mu nekk un pays sûr moo tax yenn débat yi des fois ma dégg waa Pastef fi di ci débat mais ñi leen di jox débat yi dañ leen ko jox pour ñu alimenter ko parce que ñooñu amuñu crédibilité ak dayoo mën na yëkkati débat ci kaw parce que kenn dégluwu leen mais dañuy sànni dara rek waa Pastef fi yéegal ko boo xoolee Pastef dama koy faral di wax kuréel maa ngi dégg El Malick di ko wax Pastef benn opposant la am mooy Pastef ñooy defaral seen bopp ñooy yàqal seen bopp. loolu tax Sonko ak Jomaay nan raxas administration ba mu set bépp nit bu fa Macky Sall amoon na la dàq man loolu laa gëm teg seeni nit dénk ko wóolu parce que Macky Sall ba jusqu'à présent mais ñi ko nekkat ci administration bi est-ce que nekkul ñu ngi koy rendre compte ba léegi mi xam li xew ci réew parce que il est toujours secrétaire général de l'APR mais aussi mi ngi servir ba léegi réewum France ana israélien yi fi Macky Sall indi woon ñuy déglu di ñu déglu suñu yi du ñu def sous écoute israéliens yooyu mais est-ce que nekkul ni ñi ngi ci réew mi ba tey jii di ñu déglu di ñu yëddu te ki leen fi indi woon mooy kan mooy Macky Sall Diomaye est war nu ñooñu waruñu seen mbir jéem a débarrassé wu ci ñoom pour que ñu lii parce que lépp luy renseignement ak information état da ci war a fiir loolu tax dégg naa sécurité pale bi ka ka jiite woon changé nañ ko teg keneen ànd naa ci tey warul yem ci loolu képp ku fi nekkoon di takk der di FDS di keneen ak keneen. nekk ci commissariat yi waruñu kon ne di fa ne procureur yi waruñu kon ne di fa ne képp ku laale woon ci salte yi Macky Sall doon def da nga war a puus parce que nag des fois nga yëg yoo xam ne tey ji la jamono yi bari na ñu am problème mu facture ci Sénélec ak seen Sen'Eau te réew ñaar moo koy jafal ñaar ji nga leen def ci transport bi def ko ci meññe yi nan surveiller bu baax Senelec ak seen Sen'Eau mois bi problème facture bari na ci Sénégal ay facture cent mille francs ci ñi daan jot ay dix mille ak vingt mille bari na fi loolu bu nan ko vérifier xool nag sabotage la parce que am na directeur bu fa nekkoon ay nitam ba tey ji ñi ngi Senelec am na ñu nekkoon Sen'Eau ba léegi seen i nit mi ngi fa est-ce que bëgguñu saboter le nouveau directeur y problème waxuma moo am de mais. képp ku nu fal ci place bu bees bu doyloo sa bopp rek ndaxte place ba la dénk da nga fay fekk ay nitu mag Sall yoo fa nekkoon te bu sañoon Sonko ak dañuy échec bu sañoon sonk ak Diomaye dañuy échec te réew mi ñaar ñett rek ko mën a yëngal dama la koy wax dund gi courant bi ak ndox mi nguur gu mës bëreek yooyu daanu kon ñu fexe ba courant bi am stabilité parce que mi ngi coupé tamit coupure yi ko am na yu ci tàmbaliwaat ñu xool lan moo koy indi ndox mi tam ñu xoolaat pour vérifier qu'est-ce qui se passe bu dee ay sabotage ñoo ci ne ñu seppi ñay saboté teg fële teg seeni nit parce que nag projet bi ña ko gëmoon démb ñoo ko mën a doxal tey parce que daa am ñu mu arrangé wul ci réew mi ñi ay kilifa diina lan ñi ay kilifa aada lan ñi ci administration bi lan ne ñii ci li li ci li ñuy ci lee mais ñoo ñëpp boo ko nee di leen bàyyi seen poste foog ni dan dañuy nekk ay patriote pour di liggéey réew mi yéen a ngi nax seen bopp di nga ni ngeen bëggee réew mi ba mu jaral leen lu ne loolu la ay nit bañee réew mi ba mu jaral leen tey ji bu ñu xëy réew mi tàkk dinañ utiliser seen i presse dinañ utiliser seen alal dinañ utiliser seen doole dinañ utiliser seen xam-xam parce que ñu bari dañuy bàyyi xel tubaab yi weex yi mais tubaab yi ñuul yi dëkk ak ñun tey liggéey tubaab yi weex yi ñoo gën a dangereux te ñu ngi ci réew ba tey loolu tax bu ma déggee ci conseil des ministres yenn commune affaire yi yéex loolu damay tiit te da war a gaaw nag war a gaaw ci lu bari parce que am na mbir yi sensible yi xewoon ca Medina Gunaas ak Medina Gunaas lu mu jotee capitaine Touré capitaine ture lu ci yoram dara am yoram nekku ci mais am na yu ma ci yëg mais yooyu mënoo di ci débat yu bari mënoo di ci wax ci xeex boo xam ne am na plus de 40 ans nguur gi ñëw am ñu ko bëgg a parce que liñ bëgg a gëmloo àddina bi mooy danoo bu deful nànk mooy Sénégal du réew mu dal conflit te réew moom foofu laay tëjee ñaara ko mën a taal conflit ci wàllu etni conflit ci wàllu diine nañ ko maytu kon nguur gi taxawaay bu buñ ci mën a am ci fulaak fayda nañ ko taxaw te bépp nitu Macky Sall boo xam ne mi ngi fi woon di doxal ñu sepp la teg seen nit pour mën a dérouler di gërëm ñëpp di leen euh, sant di jégalu ñëpp di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Toog ak euh, Abdoulaye euh, Diallo ak Fallou di leen nuyu di jégalu ñëpp nag ñun fi tudd seen tur yëpp bu dee ni tudd gi leen tudd neexule ñu ngi jégalu bu dee njuumte aussi am na ci ni ñuy doxalee ñu ngi jégalu jubluwuñ ci dara waaye nag sunu xel lañ doon demee ak sunu xalaat di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.